não. Fica não, fica não. As passes. As passes. As passes. Mugal, Mugal. Avança! jewal bamani leen day fanaan ñu gàttu yàlla yàlla ba mu jógee mbàkke baay jagee ñoo te am teel sama portable kaay boo sori Ireland, Jalan di kantor Allah let's go. bisam bii mu julli woon sa ñaar rakk ya ca ndar moom laay def sama anniversaire maa yey dëgg la Mbacke Bye-bye. الاهتمام sëñ la. sëriñ Bassirou moom sëriñ Xaadim Awa Ba biig la fi jóge ba mu demee yónnee ma ab enveloppe. dama comme suba la sa anniversaire mooy njëgu gâteau bi. mu ne ko njëgu gileem gi boobu sóor direct lay def la anticipé woon keneen ak keneen noonu te dara waral ko lu dul 5 septembre dama bëgg ngeen def ni seen veste bu biir ko jëm

làquwaay wéeruwaay làquwaay wéeruwaay làquwaay wéeruwaay làquwaay wéeruwaay am teel diggante bi ñu amoon teeti jërëjëf teeti Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni jërëjëf teeti jërëjëf teeti Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni Peter Bey, Michigan Bey'in